Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf faatuk Mamadou Moustapha Ba mooy lii fës ci yéene kay ni tey ji réew mi quotidien mi ci àddu tey xam le ni am na liy ñuul ci li nga xamante ne kon moom mooy faatu gi ci boppam ndax procureur de la république ci boppam daal dinay activé division des investigations criminelles gannaaw autopsie bi nga xamante ne sàkkoon nañ ko ñu daal di koy def ba am lu mu feeñal ci biir yéene kay bi maître ella jouf di sàkku nag ñu daal di jox daar daar njabootam li nga xamante ne moom mooy néew Mamadou Moustapha Ba moom ancien ministre des finances et du budget mi nga xamante ne faatu na daal Sud Quotidien nee na justice ci boppam dugg na léegi ci yëf yi ndax autopsie bi nga xamante ne fësal na ni faatu gi daal nekkul mort naturelle mu mel ni am na tamit coow li juddu ci ñaari signature yi nga xamante ne bokkul bu ñu sukkandekoo ci parquet bi yoon tamit daal di sàkku ab ba noppi levée du corps bi ci boppam mujj nañ ko toxal li ko waral nag laas nee ñu du dara lu dul faatu gi nga xamante ne dañoo jàpp ni am na la cay ñuul amul gannaaw résultat yi nga xamante ne moo tukkee ci autopsie bi ñu amal faatuk Mamadou Moustapha Babi tamit l'observateur mi ci xëy xamle ne ni parquet bu ndakaaru ci boppam daal dinay jël enquête bi jébbal ko waa dika ba noppi li ñu jàppoon muy levée du corps bi ak rob bi mujj nañ ko toxal njaboot ak jegeñaale Mamadou Moustapha Ba nag mer ba futt la ñu def jamono ji li waral mer gi le quotidien nee ñu du dara lu dul dogal bi nga xamante ne procureur jël na ko ngir toxal li nga xamante moom la ñu waroon a ba mooy tamit li fës ci le soleil yéenekaay aan bi di xam ne ni am na lees waxul ci li nga xamante ne moom mooy dëddu àdduna ki ñu dénkoon fii wàllu finance ak budget ci Sénégal l'observateur mi nettali naka la yëfi tëddee ba tax tey ji ñu mën a njort ni am na liy ñuul ci faatu gi yéenekaay groupe Futur Média bi di xam ne lan moo waral ñu daal di wolu ki nga xamante ne moom mooy soxna Moustapha Ba ci boppam ca division des investigations criminelles ay yu bëri naka noone SMS yi nga ne amutoon tontu tukki bi nga xamante ne ñaari nit ñoo ko defoon ca Mamadou Moustapha Ba suñu naataango yi di indi sax ay leerange ci bis bi nga xamante ne Moustapha Ba faatu na ko ak anam yi nga xamante ne tamit gis nañ ko néew bi lii yëpp nag ñuy nettali ci faatuk du mustafa Ba ak li tukkee ci autopsie bi tax na ba Walf Quotidien di yëgle ni mbir mi daal dafa mel ni affaire d'état la mujj ci biir yéenekaay bi maître El Hadj Diouf mi yal njaboot gi di xam ne ni Mamadou Moustapha Ba daal méritéwul traitement bi nga xamante ne moom lañ koy def gannaaw faatuwam ak dossier bi fa mu toll tey dossier bi ñel doxalinu Prodac libération Matignon yéenekaay bi di sulli li fës ci enquête bi Ibrahima Cissé mi jiite société Tida mi ñu teg loxo jot na lu ëpp benn milliard ci suñu koppar ci li nga xamante ne moo tukkee ci ay fausse facture Jean-Pierre Senghor mi nekkoon tamit coordonnateur Prodac di nettali jëfin yu ñaaw yi nga xamante ne Ibrahima Cissé ak xaritam bi di Mame mbay ñaan daan nañ ko def moom Ibrahima Cissé dëggal sax ni société am ba ñu koy jël amutoon benn expérience ci wàllu transit moom Ibrahima Cissé mel ni ku gën a suuxal Mamina Daffé Khadim Banak mi ñu jëlee ca prison daal di koy teewlu Sow moom borom Lok Afrique mi nga xamante ne nekkoon na partenaire financier bu Prodac di yëgle ni am na lu toll ci fukk ak ñaari milliards ci surfacturation lu yëpp di wane ni kon coowal Prodac daal yëfi xaajul bay jeex campagne électorale bi nga xamante ne jeexagul candidat yi ku ci nekk mu ngi cee boppam ci fan yi mujj yor-yor bi di ñu nettali li xew ci njeexitale bis bi ci diwaanub Diourbel ak Louga mobilisation yu takku yi nga xamante ne moom lañ gàddu gi waaye mu mel ni podoor nee na ko randul ndax ci biir critique ñu ngi xamal ni amadu Ba daal démb dañu ko fa teeru nan wi teeroo buur Cheikh Omar Anne ci boppam mooy ki organiser accueil bi ñu jagleel te de liste coalition jàmm ak njëriñ moom amadu Ba ci biir Vox Populi gannaaw mbooloo mu bëri mi ko dar tamit ca njum fësal na ci mbégteewam bu baax a baax docteur Abdoulaye Ndoye mel ni ku amul mbégte ci biir coalition takku wàllu ci waxtaan wi mu sekk ak suñu naataango yu l'observateur moom vice président bu réew mi mu ngay yëgle ni ni partiwam ci boppam tooginam ci biir coalition bi daal des nañ ko xoolaat moom réew mis bi di yëgle ni am na coow li nga xamante ne jot na am diggante Macky Sall ak Idrissa Seck diggante Bakel Matam ak gox yi nga xamante ne lor woon nañu ci fleuve Sénégal bi nga xamante ne nangu na seen dëkkuwaay les échos di ñu yëgal tey ji ni kon coono askan wi fa dëkkee daal ba tey jeexagul lu toll ci juróom fukk ak juróom benn yi junni doomu aadama ñoom ñoo mujj génn fa ñu dëkk lu ëpp ñeenti téeméer ni ay njaboot ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi dund ci ay ab abri provisoire bëri na ci ay gone toll ci fukk ak juróom-ñetti junni nga xamante ne loru nañu ci école yi nga xamante ne dañ leen a tëj lu jógee junni hectare yi nga xamante ne béy nañ ko ba noppi tamit jamono ji ndox mi yàq na ko yàqeet fii ñu toll nag les échos di ñu xamal ni choléra bi moom mel na ni mu ngay yootu ndaw yi dëkk ci gox yooyu lii yoot ndaw yi jaar ci mbëkk mi wutali Espagne enquête duñu xamal ni du dara lu dul prison yéenekaay bi def gëstu bu yaa ci wàllub immigration irrégulière ma ngay yëgle ni bëri na ci yooyu le ndaw yi nga xamante yi la ñuy dugg bu ñu yeggee ca prison espagnole yi la ñuy mujj te atte yi nga xamante ne ci anam yu doy waar lañ koy defee dafa mel ni pexe la léegi wi nga xamante ne espagnol yi dañ ko jël ngir fexe ba dakkal li nga xamante ne moom mooy immigration bi ci boppam yéenekaay bi di ñu xamal ni lu tollu ci ñetti téeméeri ndaw yu jóge ci Afrique ñu ngi leen di tuumal organiser ay voyage yi nga xamante ne ci ay bato la ñuy jaar rëg-rëg mi jaar ci làmb ji dugg ca MMA Rewmi Sport di yëgle ni moom mbëru caaroy bi def na jaloore gu rëy ci samedi gi